tey laa gëm ni man d'accord ma ci transport ma ci woon man dama wax ni Macky Sall depuis un an depuis deux ans waroon na tànn dofem mun mais je me suis rendu compte ak si bàll puudar yi mu nekk ci dëkk bi nii bu doon yàq parti bi yàq réew mi je je reconnais que Macky ay raison sur heureusement que Macky Sall waxul woon ne du du rek candidat heureusement pour nous tous heureusement pour Benno Bokk Yaakaar heureusement pour le Sénégal parce que musu woon a imaginer un ndax Macky bu nee du def candidat mais lii ñii nga xam ne tekku woon ko jox jëf ji sooy ñeef lañ koy def. ñan ñoo tekkiwul dara mais ñoo tekkiwul dara ñu ne ay candidat lañ. te ñu sakkee mais du dara bu ay ay ñu sakkee ko bépp ma bokk ay warkat lañ. te léegi nan lay nommer ñu tekkiwul dara. kon que c'est la responsabilité yàlla yàlla rek xam li xew suba nit mënu koo xam wala ku yàlla déy Macky Sall nit la da nga koy jox CV wala ngeen ànd liggéey mu yaakaar ci benn pour tax ñu def remaniement tout le temps. Macky Sall. waaw may may gën rek. dañu ko dañu ko yaakaar jël suñu 17 millions de destin jox ko ko. mu defal ko jàpp ne am na vision. def ko jàpp ne il connaît. la donc bu jëlee ay nit. waaw dem nga toog fii naan ñooñu ay bàlle puy de lañu. kon Macky Sall moo. engagé ay bàlle puy de. te bu boobaa la nga dénkoon Macky Sall. la nga dénkoon Macky Sall. yow mii sa biir xol man Sénégal yi seetaan xam ne ni yor na ko na nga ko waroon a yore gisoo ñi gën a bañ Macky Sall Sénégal duñ song Macky Sall ci biir. non man waxuma man waxuma waxuma da nga ne da nga ne l'islam da nga ne ñu déclaré gën ñëpp bu ko yàlla defee muy créé état état am nañu ne ko ci biir ko yont yi ne ko ay naafeq lu yont bi amul yàlla amu ko nit ñi baax ñu amuñu ko Macky Sall dafa doon échapper groupe bu tamit APR ak benn bokk yaakaar am nay traître traître mënul passé traître mënul passé ngeen bokk benn parti liggéey toppandoo ak benn pendant douze du onze ans ñu dem ba war a tànn moom mu taxaw ci digg Sénégal ne man kat maa waxoon du dem du dem mais dinaa tànn kenn ku ma leen tegal wo ca ngoon ci bisu mu woote woo dim ndëkk de parti la njëkk woo ne leen dematuma lu ciy seen xaraat carte yëpp taxaw di ko xool na na ko yaay suñu kër jox la carte tànn ko tànn d' accord nañ ci man bu dee man Birima Ndiaye dama ci parti damay taxaw da koy eh, dégg monsieur man joxe ma sama kàddu man kat comme déggoo Mansour dama nekk candidat waaye Maïmouna Ndour suñ ñëw tey ñu ñett ñu suñu kilifa ñu la Maïmouna yow yaa ñu doy yaa ñu yoroon yaa ñu yiris tàndal koo tànn doy nañu ñun ñëpp ku ne bàyyi na sa xel bi te xam ne kenn nga ma tànn ku ne def nga sa xel bi mën nañ maa bañ tànn am na wax ma man wala taal ko mën a doon dèjà li fa nga joxe sa kàddu yow mi fi gor la Macky Sall si gor la mu téye wax yooyu yëpp yamul foofu mu woo Benno Bokk Yaakaar ne leen li si nga ci xalaat ñooñu na ko bàyyi ñëw seet suñu parti keroog bi ñuy jox secrétaire exécutif bi ñuy jox Aminata Mbengue Ndiaye euh, kii ko ni may seetal maa nga fa fa la fekk ñu ne ko defal la carte bi dama nuyu sa Macky Sall wax ak ñun te la carte blanche. père jox carte blanche Aminata Mbengue père jox euh, AFP jox euh, Moustapha Niass ñoom Omar Sall ku leen jox la carte blanche ñoom ñu wax sëñ bi toogaat ak Macky Sall ne ko jox la carte blanche mais sëñ bi loolu waxi góor la Macky Sall si nit la mu xool ñëpp waxtaan ak ñëpp oh, mënoon na ba mu joxee carte blanche mu def tànn yemul foofu dafa def ni du ma du ma jël li lu ne sax bëgg a jël lépp dafa jël Moustapha Niass mi mag delloo ko yi fi ne ko wool candidat bi dugg leen xoolal na Moustapha ku dem na Moustapha Niass man bëgg nawet ma taal ku taal ma ànd ci ñun ñëpp lu ko miin waaw yow nga wax say góor yooyu nga dem ba ci biir am ah, na il faut ñu tànn kenn ñu tànn Amadou Ba kii jóg fii jaar fee kii jóg fee jaar fee euh, am ñu jóg fan am ñu ci ñuy sax ñoo xam dañu war naan Macky Sall nekk suñu ginnaaw c'est des menteurs